يا من أتى بخلاص فائق درارا قد جئت ما يعجب السودان والغرارا يا من أتى بخلاص ذما على خير البرية من قد أنزل الله في أمداحه سورا يا من أتى بخلاص فائق دررا قد جئت قد سغت في سيرة المختار شافعنا ما يخجل الجوهر الياقوت والدرارا يا من أتى بخلاص فائق درارا قد جئت ما يجب السنان والغرارا وما أتى خالص الإبريز مجلسه در اليتيم لدى أرجائه اعتذرا يا من أتى بخلاص فائق دررا قد جئت ما يجب السودان والوطن كم جئت بدعا وتعي في مدائحه ألا القرائح كم أفحمت من شعراء يا من أتى بغلاس فائق درارا قد جئت ما يجيب تبارك الله يا الله am na koo xam ne loo ko defar rek jomb ko. la. koo xam ne loo ko defar jomb ko. Mm-hmm. te maa ngi koy wax bër ki démb ci dëju Alioune Sall bi. Mm-hmm. man leen wax ni boo amee juróom-ñaari maam yu faatu. Mm-hmm. ñu suul leen ci boppu jàkka. nga am juróom-ñaari maam yuñ la ni ci jihaad fii sabilillah la ñu daan. boo ko yëgee boo ko yëgul am na lu diine xaar ci yow. Mm-hmm. am na lu diine xaar ci yow. Mm-hmm. moo tax rek mm-hmm. ñun mag ñi dañ noo tayle. <laughs> mënoo ci dara. mënoo ci dara tabaarakallaahu. ay yàlla baax na. yàlla baax na. sama sama sama copain bi laa seet si jàpp ak juma jumbu ji ji. waaw ah. yow seet si ko. waaw. xale yi dañ may yóbbante bi bi ñuy ndob bu ma demee lu may wax moom xalifa ku nekk wax ba may bëgg a pare ñu ne ah nekkoon nag dañoo baal <laughs> man yaa ne ma tey bu guddee rek ko dañoo baal <laughs> ma ñëwee wax ko buñ ci tegee fan yu néew mu ne ma góor gi de dégg dégg lool lu yéeme la lu yéeme la moo tax mag ñi mag ñi lebal leen kenn xamul nu mu toll wallaay maa ngi koy xalaat rek ci fii seen chef dëkk ci Fann Fann résidence xam nga kër gi tubaab bi ko doon jaay dafa wax ak sëriñ bi pour jaay ko ko ci jamono boobu parce que kër gi boo gisee ñu ne la ci trente millions la ko borom doon jaay xam ne jaayu ko ci dara walla waaye tubaab bi wax sëñ bi ne ko trente millions la am ku ko yëg jaar ci suuf dem fay tubaab bi trente six millions mm-hmm. tubaab bi ñëw ci sëñ Cheikh ni ko daal mm-hmm. délai trois laa lay jox bu fekkee jënduloo kër gi ndax xam nga tubaab li mu mel ak xaalis ni ma wat naa càlla ni ma banqué tey wallaahi mënuma kenn mësu koo gis mënuma kaay rek dem waxal ma ko góor ci raw bi ma ñëw ci guddi wax ko góor gi dellu Dakar ci ëllëg sa benn tubaab ñëw di seet say cheikh jaabante jaabante parce que avion dafa war a dem fu ne mu jaar fa dugg seet jaar ci Abdourahmane Sarr fu ne sëñ bi occupé ba mu yàgg muy wax te dem seet ko ba xam lu muy tax eh, ma ñëw ci tubaab bi mu ne noonu dama ëmb sa am problème ñu boole mag moom boobu Senghor mu ni ma Senghor li ma doon lijjanti moom rek moo ko mënoon lijjanti. mu ni ma ñu wax ma ni daal yaa Serigne Cheikh Tidiane si moom rek moo mën ci Senghor ne ma waxtaan ceeg mu waxtaan ceeg moom. mu dem gis Senghor Senghor satisfaire ma. mu ne ma mais ci am commission bu cinquante millions. wallaay. mu ni ma tënkoon laay rentré. Mhm. te sëñ bi ni ma ah waaw mais ñëw na ba noppi rek ngeen gis ko. Mhm. waaye man fi mu nekk dama xaw jàpp. waaye rek tabaarakallaa cinquante million ba noonu la ko sëñ bi séddale jël trente si jox borom kër gi yi ci des. Mhm. ñi doon bind papier yeeg yëf yi mu séddale. intervention nga intervention nga. moo gën a moo gën a moom ah xam naa. daaw kañ man dinaay faral di wax ni. lu mhm. ñoom lenn moom xam nañ ni du ñàkk. Mhm. te mooy coono. Mhm. waaye gàcce du am. incha allah loolu la ñu garantir. coono du ñàkk. waaye gàcce du am. loolu mooy nga xam ne moo ci nekk. man nag damay daw dellu ni. <laughs> <laughs> comme yow laa. ziyaaraal ma sama yaay. ziyaaraal ma sama yaay. soxna Ayisa. soxna Amie dañuy wax ko ne ko rek yàlla baax na wallaay tànk yi ñëpp la yoon ci bi nee na boo bañee mu sonn la boo amee soixante ans rek bu tal yàpp du ko doxe waaw boo bañee ay um sonn la yàlla na ko yàlla saa ah sa sa maam sëñ Babacar Si day daf daan toog di bés omi di wax ni xaw ma lan la di wax ma taraktu saaxiran wala tabiban mu ne fu ne dem naa fa ndax omi sëñ Cheikh ni ma dara tegu ko ko parce que bu ma santee kuru gannaaw gee du soppi position te fajar jotu waaw boo waxee mu ne parce que ñàkk teggin la ci kanamu borom bi ngay soppi doxale waaye nga toogee daal moom lay continuer ba fajar jot waaye yal ko yàlla woyofal ngay seeti bu jot te surtout rek yàlla sàmm la. Ah, ñun sunu toogaayu ndakaaru bu ñu fa mënee toog xel dal. fi mm-hmm. ñu la bàyyee. dëgg la walaay si walaay si. dañ koy waxtaanee jamono bu nekk. yàlla jàpp. أنت تكشف عنا اللبس شافعنا ولا استتر كل سنقل أو كثرا يا من أتى بغلاس الفائقين درارا قد جئت ما يجيب السودان والغرارا أتنيت جملة أحسن تهترها من المدائح ni كلنا ثمرا يا من أتى بخلاص فائق دررا قد جئت ما يجيب سدانا كم دار فكرك آفاق العلوم وكم أخرجت منها مفيد دا قاضيا وثرا يا من أتى بخلاص الفائقين درارا حكيت ما يجيبون